comme ça lu ma wax mu dégg ko mais xoolal ko yokk bu mu sës dégg nga yow nitu pikin nga rek ay man xaaral rek yow Aïcha mais articuleur pikin nga Aïcha commencé ma ne nitu pikin nga nga ah ah bu ma jéem a dégg ah, waxal nitu pikin nga jàllal waxal beneen Ok. Rido. Ouais, yo, ben, ah. Ben, c'est le tijou, c'est gaming. Ouais, ok. C'est c'est gaming. Acha. Rido, ben. Bisous. Rido. Bio. Rido. Nani? Rido. Rico. Ma waaw. sa bëñ yi sa dentition bi ok garaaw sa bakkan bi dafa rëy. waaw ay phrase ngay wax quoi. sa bakkan. dëxin. sa bakkan dafa rëy. Eh, ay la yow tamit nag acca. xam nga. yow phrase laa wax benn bëgg laa la. comme a changé. xool oh, refaire vidéo bi. non non non ah, bañ. xool dama lay expliqué dama lay expliqué non non non joué bët. ceeb. bët. bëñ. bët. bët. mbaxalu Saalum. léegi danga maa jege mbaxalu Saalum. mbaxalu saalum mbaxalu saalum hmm, moroxe moroxe yaa ngi may dégg yaa ngi may dégg bu baax waxal forme la ok ma ne bëggëj <laughs> ma ne bëggëj ma ne ma ne bëñ ma ne ma ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi ëppal de waxal ay fra axal moo dama ne pompiteer ma ne mu wax rek. pompiteer ma ne sa bopp bi ma rëy. sa bopp bi rëy. tëbal. ok ma ne. mbalax. mbaxal. ma ne. ma ne. sa sa bakken bi bakken. sa bakken. <laughs> sa bakken bàyyi. dama koy dugal tëjee ma koy dugal sa pap bi.

<coughs> Beceriana. Vou hum, não hum, come. Aí eu vou limão fora. Minha rota tá aí. Wahal aí? Eu em Harni. Daí, acho é. Ah, mas a articulé. waaw d' accord ñu ñëw. articulé woo yow tamit. ñëwal. waxal. ñëwal. diwlin. ñëwal laa la wax. yow laa wax. ma ne ñëwal. diwlin. ñëwal. articulé woo. maa ngi articulé ñëwal. gis nga nii nii yaa ngi. articulé ok ñëwal. articulé. ñëwal. ñëwal. foo jëm. foo jëm. fan. fan. nga ni. ay. nga ni. kañ. nga ni. ay. nga ni. <laughs> dama dama bëgg <laughs> fay waaye doo fay waxal. tegal lii sa nopp yi dañ teg greffage xaw ma. laa yëpp dugg na. dugg na. dugg na. diwlin. dugg na. dugal. dugg na. dugg na. waaw diwlin. wecci. diwlin. mais article. diwlin. diwlin. ah ceeb. ceeb. ah xaw ceeb. wala saaj. saajal boobu. xam nga. am nga hahula hawla jahraja akola taala hawla za bon article ah oui article <laughs> da ngaa bëgg tricher lan la ma la gas sànq pataas <laughs> voilà jeu de casque <clears throat> damay taal dangay taal musique bi man maay kii léegi man maay wax nga deviner <clears throat> lekk ak naan rek lay def <clears throat> sama taaw bi sama taaw bi sama taaw bi may yóbbu shopping. di eh, sa gémmiñ gi. kan nga shopping. nga ni. <laughs> mais amul de non amul yaa ngi. est-ce eh, que articulé may la maa ngi articulé da ngaa bëgg sàcc. <coughs> shopping. kañ laa lay yóbbu lu ne xaama changé. waxal moo moo kase. ataaya. ataaya. tàngal bant. tàngal bant. non non bul jege si. bant. tàngal bant. parce que dégg. da dégg <laughs> kii moo fa mbuus dégg ya xam nga leen kii def foofu <laughs> da ngay dégg moo nga ñëw naa ma ah ah ah <laughs> pegar entre GB